lañ ñu jàll ci ponk bu mujj ci xibaar yi mu yëglekaay li ñu xëyee tey ak El Hadj Hassane waxtaan wi président Macky Sall woote keroog bi mu jullee ba noppi korite gi dellu baamtuwaat que waa f ñoom loxo boobee mu tàllal nanguwunu ko observateur mënu ko xamal yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne dañ caa teg sax di dëgëral fas yéene dajaloo fukki fan ak ñaar ci weeru mai ci ndakaaru ngir tàmbali xeex bi ci lépp lu leen yoon may démb cim ndaje seen biir lañ jël boobeeb dogal laas moom ci weneen wal di yéemoo ko seetlu ñàkk teewu Khalifa Ababacar Sall ci moomeem ndaje terewul ndaje mi am ci bi di réew mi jàng ci ne rëdd yi nga xamante nag waa F24 xamal nañu ko fa président Sall ne moo leen gën a yitteel bokk na ca moom président mu tegaat ci suuf ba faw waxi troisième candidature libéré seeni ñoom ñi ci kaso bi ca ñu jàppe leen ay détenus politique la leen yitteel ñu ne bokk na ci ñoom waa F24 moom président mu daal di organiser bañ caa bokk élection yoo xamante ni yu leer lay doon ñu dul beddi kenn keneen ku dul dem nag te moomam ndaje président Sall woote di njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ndax dafa jàpp ne du woote bu sincère bu la mu ci jublu ci gis-gisu njiital gëm sa bopp mooy daganal rek troisième candidature am Bougane Gueye Dany teg ca njort ne lépp euh, ñeel moomam ndaje du mujj su may ab baara yëgoo ci lu dul doon daray njariñu askan wi di lu nu jàng ci la tribune l'info ne F24 ñoom tàmbali nañu xeex bi àjjuma fukki fan ak ñaar ci weeru mai lay doon cim ndaje ngir jaamaarloog nguur ak président Macky fexe ba ndengeeñ ko ci waxin ngir mu yàbbiwaat ñu ne waxi troisième mandat F24 ne ci ay action yu yoon maye ca lalu ci jàmm dinañ woon àddina yépp ne seenuk ñor ci wàllu démocratie wees na ay folli waate rek ci élection xeex bi ñu ne ngir ñu féexal nag seeni ñooñ yi bi lañ ca ñu jàppaleen ko ca Gambie ca yoon tere ko def lu ni mel ci lu mu yëgluwul ak ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi laam-laamee dem gi naan ay photo yu màgget ak yeneen yéenekaay bi ne lu wér la demoon na fa source a teg ci ne dugguleet nag ab njiitu politique di dëkk yoon fii ci réew mi fàttali nañu bu ci mel ni bu Ousmane Ngom ak Oumar sa dañuy des ak source a ak député yi fi ne di yu quatorzième législature bi ak seen i jafe-jafe amee prêt ci banque yi li ko waral di banque buy lebal doomu aadama day fekk mu am yaqin ne kii am na mënuñu fayaat ko ci député yi fi ne banque yu bari dañoo jàpp bi ci Sénégal ak yéenekaay bi di la mandat bu ko jàppee moom quatrième pouvoir bu nu jàpp otage li ko waral di place ba Sénégal ne faax toog ci classement RSF gi ci wàllu liberté de la presse téeméeri lu place beeg ñeent dandu ginnaaw fanweer ak benn ci place enquête ne liberté gi ñeel presse fi ci Sénégal nag du lu yomb ndax ñàkk jaaroo gi léeg-léeg diggante nguur geeg journaliste yi ca moo ne ci lu yàggul dara Sénégal ci fànn woowu royukaay la ci woon ministre Abdou Karim Fofana bi moom ci enquête ba tey ne de la presse la par ak yeneen Mactar Sylla kàngam macha allah ci métier mi moom gis ne dossier yi ci la a yàbbis na fekk journaliste yi ñoom it ci seen liggéey di la guddul paatu ne la woon ci wàllu xalima ak kàddu moo waral mu jël turam jox ko daara ji di sës ci dañuy waxtaane meneenu métier di poste kër googee di poste nag jaga di loolu jamono yi ba njiitu réew mi ci boppam lu yàggul nag faaw dogal yu mag jibee ci kër googee maanaam ak tàqalikoo génn ci ci ñaari junneeg juróom-ñaar téeméer ñaar fukk ak benn di départ yu nu nar a waxtaaneeg yu lalu ci wàllum cooxe koom-koom ñu jeexale lamb jéeg mbaqus bi promoteur bi di jamaïcain borom jam production baaxee amateur yu lamb yi Sénégal ba mbaax jee rëg-rëg mu ne dina ko tëgg lamb joojee laata janvier 2024 di lu nu jàngee ci sunu làmb partir